Supersonics Money Transfer ñoo dellu si waat leen xéewal bu neex a neex fii ba weeri di jeex waaw fii ba weeri octobre di jeex mën nga am sansu win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis Gambia bàyyee ko foofu sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonics Money Transfer <laughs> xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri octobre di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saako maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokka ci téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win ci xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko naatable ak Supersonics Money Transfer bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën noppale ak yónneekaay xaalis bi gën màgga ci biir réewi Gambia te duñu la fayeeku dara Site leen ñu si Google Play Store wala Apple Store nga mun a bindoo si suñu app bi di Money Transfer app suu cay bii xéewal ak Supersonix rek to Gambian Talents Promotion the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GCP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. Contact GTP on 750 3654 750 3654 or 794 9214 794 9214 404 593 6215 or email us at gambiantalents at gmail.com. GCP, the people's power. Power. Power. wa rahmatullahi wa lu lan nekk programme boo xam ne dafa jóg pour defar diggante yi. diggante dinañ waxtaanee nag si biir kër yi. diggante nit ki ak boromam. dinañ dem si biir office diggante nit ki ak yonantu. dinañ génn réew mi. diggante nit ki sax ak moromam bàyyi daam am na ko tiit na lool ci diggante ak boromam mbaa du yàqu yi. diggante du fi yàqu diggante dina ko defar fii. ndax nag réeroo amul daal waaye ñàkk waxtaan a am bu ñu waxtaan waxtaanee gindandikoo programme boobu nag ana ñan ñoo koy amal. Mouhamadou Lamine Kane ak Mansour ànd ak xaritam Baye Dame Diouf ñooy def diggante. Gambian TV. Mhm. ñoo leen di indil programme bu mag boobule. dinañ ko indi ajuma bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee ba juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu ala sayidina wa xabibina wa maulana muhammadin wa ala wa asxaabihi alkiram mbokk yi tedd yi programme bi di diggante muy bàyyi ko file télé bu mag bii nga xamné modi Gambian Talent TV tabaarakallaahu ñi ñaanal yàlla képp ku fi jaar yalna yàlla jox la talent boobule ci barki yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu ndaw yi nga xamné ño fi nek di fi liggéey waye di nuyu itam ki nga xamné mo leen jité di Pa Ousmane Diouf ak njabotam ak wayjuram surtout yaayam nga xamne du du tardé programme bi lé mbokk yi <clears throat> gannaaw nuyo yi dañ nuyu nak sunu gor gogulé di Alaaji Baye Dame Diouf di ko ziar bu baakha baakha baax di ñaan yalla febar bi lé yalla fi joggé ba delu wat ci sen sago ba programme bi mëna daw ni nu ko doon doxalé man ak mom tey dañuy àndaat ak yéen ci jéem a mottali tomb bi nga xam ne buñ ko mottalee daf ñuy dugalaat ci beneen tomb mu di ku sonn ci lu baax bi ngay doon ndaw boo màggee noppaliku ci bànneexut na laa jafe te itam daf ñu dugaloon ci bëgg Seydina Muhammad ndax mbëggeel googule moo lay jox texe àdduna ak texe ak alaaxira suñu waxtaan bala ñu ngi taxawoon ci xubbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aynu xubbillahi aynu xubbillahi wa xubbillahi wa xubbullahi azza wa jalla aynu xubbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga yàlla mbokk yi dafa wax ni mu bëggee te kenn mënu ko nax yàlla nee na ku bëggut yonent bi man yàlla soo ma bëggee bëgguma nee na ku bëgg yonent yàlla muhammad it yonent bi nee na boo bëggul yàlla man muhammad bëggeel googu bëgguma moo tax xubbu rasulillahi aynu xubbillahi aynu xubbillahi wa xubbullahi azza wa aynu xubbu rasulillahi salallahu alayhi wa moo tax boo ne man yàlla rekk laa bëgg waaye muhammad gëw ma ko comme ni nga gisee muy xew ci àdduna bi idan fa anta kaddaabun képp koo xam ne nee na dafa bëgg yàlla te bëggul yonentu yàlla muhammad waaje waxul dëgg koo xam ne nee na dama gëm yàlla waaye muhammad gëw ma ko sa ngëm nga yàlla nangoo ko moo tax li anna man ahabba allaha ahaba rasul al akram ke bëgg yàlla daal day bëgg yonent yàlla muhammad saai sallam parce que ar rasul sallallahu alayhi wa sallam an nabiyu al akram laysa lahu daatun yad'u ilayha sayidna muhammad euh, amut amut jëmm ju muy wootee maanaam wootewul jëmee ci boppam sayidna muhammad wootewul jëmee ci boppam moo tax boo ko bëggee rek daay rek da ngay bëgg yàlla suñu borom tabaaraka wa boo ko gëmee rek daay dangay gëm yàlla suñu borom tabaaraka wa moo tax yonentu bi daan xeex ci shirk shirk waaw ndax mën nañu ko gëm ba noppi di def shirkul akbar wala shirkul asqar waaw di bokkaale te duñu ko xam te naan billaay ñoo bëgg rasulullahi maanaam nga fanaan ca tàntu bi yonentu bi yendu ca ci bokkaale yàlla loolu yonentu bi da ko daan yonentu bi jéemoon na ci la mu man pour nu moytu ko mhm. lay بس ليس له ذات يدعو إليها إنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم موته يمثل الكمال البشري سيدنا محمد بأنه إنسان دام صوخني وفي موم تبارك الله كان ما توفي كان من الذي ما ساءقت ومن له الحسنى فقط من الذي ما ساءقت ومن له الحسنى فقط tabaarakallaahu xam nga waxin wu ne daal laaj dégg waaw fii daal kenn mosu fi kenn matu fi ku ne def nga fi lu ñaaw xam nga tey saan foo demee ci fu ñuy taggee nit nga naan waaw fii moom kenn kenn matu fi waaw kenn ku nekkee juum kenn ku nekkee def ñaawteef maanaam boobaa dëgg-dëgg yaa ngee tooñ yaa ngee tooñ nga dem ndeysaan ca xew la fekk ñiy tagg boroom xew la te tagg boroom xew li naan waaw ndeysaan kii moo baax mo yewen mo nangam wala nga dem fekk nit kuy tag nit di wax lu baxam te gis nga mbokki jamono nge jamono nge jëm ci inhiyar inhiyar manam aduna euh, bu don tabax la nga ne da mel day mabbu ndax jikko yi mo tabaxon aduna te jikko yi mabbu gis nga fu ne boy wax lu bax ci nit ki ñu ne da ngay door mat kenn xamatu foy sato mbax xam ngeen mbax satu moy fartatu jamono dafa tilim ba nga xamne na aybu zamanana wal aybu fiina wa ma li zamanana aybun fiina dëgg la ñu ngi naan jamono ji yàqu na fekk nun la hmm, fekk nun la ndax jamono du soppeeku waaja ba nga koy woy def ne till du lekk till waaye nit naa ngi lekk nit naa ngi lekkante lekkante maanawi yan waaw laysa dhibu yakulu la la lahma dhibi waaw nee na till du lekk yàppu till waaye yakulu baadna baadan nit ñi ñoom ñu ngi wanaa suwante rek xalante ون من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقط ها ها fii waaw yow kii muy wax ay baax baaxam waaw noppil noppil gis nga soo xamee ci nit ki lu bon billaahi soo màndoo na nga def ba xam lu bonam billaahi da nga def lu gën a néew lu gën a yomb loolu xam lu baaxam lu bare bare bare waaye suba goo xëyee yaa ngi ci seet mboosóor yu nit ñi seet ñaawtee fi nit ñi suba goo xëyee li tax Afrique ñuy jooy ñàkk nit ñuy utee ñaawte fi nit ñi suñ ko doon utee lu ñu dundee yàlla xam na ne daañu bëri la daañu dund ba desal waaye dangay xëy rek xëy ci mbóosóor nit lu nit ñi juum fu nit ñi yàqe fu nit ñi yàqule te gis nga lisaanaka la tadkur bihi awrata amriin fa kulluka awratun wa linnaasi alsuni sa làmmañ wii wii wii wii sa làmmañ wii nga di ci tudd ñaawte fi nit ñi rek nee na bu ko def ndax nit ñi am nañuy làmmiñ am na ñu bët am nañu làmmiñ am na ñu bët te bu ñu waxee du neex ci yow moo tax man dal ladi masa aqat ba ko waaja dee wax naan fii ku fi def ku fi ñaawlewut amut ndeysaan mu toobeeg dégg xëtif goo xam ne tuuti mu dajji dënnam tuuti ko noonu mu dajji dënnam xëtif benn kàddu goo xam ne kàddu gi bu ne bëmm kenn xamul doole ji te kenn xamul kaddu gi koy wax garab yaangi koy garab yaangi koy genné maraj yaangi koy genné ba ci sax tal yaangi koy genné lahi nan ko siwa siwa mhm. siwa hmm man ma masa akhat man dafa laccé ana kan man dalladi ana kan moy ki nga ma masa am mos ñaawal mos def lu bon mos def lu ñaaw joom xat mukk waman ana kan alladi mooy ki xam ne lëwoo ñeel na ko alxusnaa lu rafet rek wax leen ma ko man man man waman man waman laajte na ñaar man waman ñu ne ko mu hadi alladi alayhi jibrilu habat alayhi jibrilu ah, li ngay wax génne ci muhammad bu ko ci boole de muhammadul hadi aji jub day jubalaati yi mi nga xam ne bul ko jaawale de alayhi ci moom jibrilu habat habata wàccoon na jibrilu jibrilu ci moom alayhi ci moom mhm. wallahi ndeysa moo tax sayidna muhammad yumathil al kamal al bashari moo tax al insaanul kaamil danañ ci dem ci bu ñuy wax ci lu xale yi moom lu ndaw ñi moom ci mag ñi lu xale yi moom ci seen waajur yi xam nga bu ñu daaneele fii rek dañuy dugg ci lu xale yi moom parce que ñu bëree bëree bëri dañu jàpp ne xaqi waajur rek am waaw xaqi waajur xaqi waajur xaqi waajur xaqi waajur rek ngay dégg wallaay ndeysaan xaqi waajur xaqi waajur xaqi waajur waaw waaye xaqi njaboot gi bëree bëree bëree bëri ndeysaan dañuy fo dañuy jaawale dañuy foog ni njaboot gi amuñu àq mhm. bëree bëri loolu la ñu foog ni njaboot gi amuñu àq mhm. ak ñoo bëri lay àq ak ñoo bëri lay àq laahi ak ñoo bëri lay àq mhm. moo tax nag tabaarakallaa euh, ci maanaa mi ci miinin bi euh, law na insaanan boo fi gisoon nit koo xam ne jëfewul jéemul a jëfe sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa mais mu ne dafay jaar ci beneen côté bi pour jéem a defar côté ak yàlla yàlla du nangu moom laa waxoon léegi parce que yàlla ne wama arsalna min rasul illa li yutaa bi idnillahi mhm. gis nga la ci yàlla teg dafa neex walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha fastaghfaru llaha jaa'uuka fastaghfaru llaha fa fastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawaaban rahiman moo tax ki ko ne ko anta baabullahi ki ko wax ne ko anta baabullahi ay yumri in yow yaay buntu bi yàlla bi ku mën a doon mu ne day dem ci yàlla te du jaaree ci yow du dem na leer na leer laay ndeysaan mu ne ko du dem moo tax tabaarakallahu gis nga eh, Abdullahi ibnu am ibnu amr ibnu al aas dafa ma sa dégg sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ni eh, ida samitum al muaddin fa yaqulu fa quulu aw fa quulu su ngeen déggee noddukat di noddu fa quulu misla ma yaqulu li muy wax dee leen ko wax ci suuf سمين پر فصلو ثم صلو علي فإنه من صلى علي صلاة صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على سيدنا محمد گسنگ خمغا جوليك يالا تي نون مودي مودي ندسان سونو انسورانس تي يالا واو انسورانس تي يالا بير سونو انسورانس مودي صلاة موتاخ ناني جولي تي يونتو بي ku julli ci yonent bi rek assuré nga sa bopp wallahi ndeysaan parce que yàlla julli na ci yow suma salullaha li al wasila fa innaha manzila fi l janna wallahi ndeysaan laa tanbaqi illa li abdin min ibadillahi fa arju an akuna ana huwa wa man saala li al wasila xallat lahu alshafaa waaw góore sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Mm-hmm. léegi ñu delluwaat ci Sayyiduna Rabia Sayyiduna Rabia kon léegi Sayyiduna Rabia yajlisu ala atubati rasul baabi rasul sallallahu alayhi wasallam mu ngi toog ci buntu Sayyiduna Muhammad bi kon waaw mm-hmm. uh, amaana léegoo-léeg mu toog ba sonn mu tëdd mm-hmm. noppam baa ngi dégg yonentu bi buy julli guddi li muy jàng la yonent bi di jàng na muy jàngee fatiha laahi ndeysaan allahu akbar allahu akbar ah yéeme na de léegi-léegi xam naa dana ko dégg mu ne samia allahu liman hamidahu حمدا كثيرا طيبا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا moo tax benn bés rabiatul adawi adawiya doon na déeyaale boromam ci guddi tax guddi tam déggoo léegi nga julli guddi baax na soo ko mënee di di julli guddi baax parce que yàlla nee inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulusi leyli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nisfahu wa thulusahu wa taifa min alladina maaka moo tax fexeel bokk ci taifa min alladina maaka bul ko bàyyee saxaaba yi rek ak taabiin yi awliyaa yi bokk ci rabiatul adawiyat yi moom bokkoon na ci ndeysaan benn bés mu ne muy deeyaaleeg borom deeyaaleeg boromam mooy di di ñaan yàlla naan ko yàlla naan ko yàlla euh, ya rabbi axlaqatil almuluk abwabaha buur yi tëj nañ seen bunt yi xam nga tey ku bëggoon a gis kilifa ci nguur dangay dem dañ lay jox rendez-vous bëccëg wala suba wala naa nga waaye guddi ah gisee guddi moom tabaarakallah la mhm. na yàlla waxalaa kullu xabibin bi xabibihi yàlla guddi gis gi sëmbërtël na ay mbiccam xarit bu nekk nag xarit bu nekk mu nga mu nga wéet ak xaritam waaw mu ngi ci min ndeysaan tabaarakallaahu xarit bu nekk mu ngi wéet ak xaritam xam nga du caageen rek jabar ak jëkkër rek mhm. jamono boobu moom mu ngi wéet ak xaritam kuy xaritam mooy yàlla sunu borom mhm. da ko yàlla ñépp tëj nañ seeni bunt kenn ku nekk yaa ngi wéet ak sa xarit ci guddi gi man nag maa ngi lay wéttali moo tax nit julli daf koy jokkale ak boroomam julli di naafila ak di julli ci sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam léegi mbokk yi sayduna rabia gis ngeen ko ndax yonent bi daf ko daan fay weer walla yonent bi lu mu ko fayee xam nga nit léegoo léeg mu defal la mu fay la lu gën xaaliss nga defal ko mu fay la lu gën xaaliss ñun nak dañu gis xaaliss te dina wax toujours ne nit mo gën xaaliss ndax nit a defar xaaliss kon ku am nit ñi am nga lu gën alal ku am nit ñi am nga lu gën alal nañu moytu di ut alal di yàq sunu digganteeg nit ñi da nga dem ba am alal amana ngay wuti wat nit ñi fekk yak nga seen digënté ba mu nëb doto mëna am nit ñi dañu la nax rek lek li nga yor waye ñak nga leen bu yag yag yag yag léegi ndax yunitu yalla muhammad daf ko fay wala daf ko delo njukkal bu fekke ne yunitu bi saa sallam fay na ko luy fay gi ay ci lañu dem parce que bokku na ci aadaay sayyiduna muhammad ku koy roy jappal ku koy roy jappal bokku na ci adam soko ko lu baax soo ko defalaan lu baax fu mu toll da lay bëgg a fay lu gën a baax li ko defal mhm. foo ko defalee lu baax rek du caageen affaire u impôt du caageen affaire u nag mais yonent bi mooy nit koo xam ne teraanga teraanga ju ko raw la ko daan fayee waaye teraanga kenn du ko fayee goraati léegi nag da gis nit ñoo xam ne dañ laan la man de wóoratut sax may defal nit teraanga waaw ndax lu ku ma ku ma defal teraanga mu fayee ma goraati da gis nit di sonn di sonn ci nit di sonn ci nit di sonn ci nit ba nit ka ndeysaan nga def ko nit mu walbatiku doon gaynde màtt la ah waaw doon gaynde màtt la mhm. nga walbatiku doon mu wëlbatiku doon gaynde màtt la moo tax léeg-léeg danga gis ay ànd ni muy daggee daf lay yéem day mel ni lu surprise la li ñii di foofu mosuma mais fekk ka nekk ci dëgg ñaan na yàlla ne ko yàlla ku mën na ma fexee lu ñaaw doxal sama digganteeg moom dox diggante yàlla ak jaam nag éé eh, eh, mbokk yi mën naa nekk lu ne lu ne ah waaw mën naa nekk lu ne wallaahi ndeysaan mën naa nekk lu ne mbokk yi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 yow yaa ngi bokk ci xaasidoo yi aw xaasidoohu mhm. yàlla nañ ci yàlla musal yonent yàlla muhammad nag say sallam ku ko mos a teraanga day fexe delloo la lu gën la ko defal te boo ko defee lu bon du la ko fay du fay mukk yonent bi daawul fay wante lu bon waaw daawul fay wante lu bon moo tax ndeysaan su ngeen xoolee suñu jamono bii nit day day juum def la naka su dul noonu day juum nañ jël nañ jël juum nga ne dana xam ne maa ko gën a bon waaw kon kañ la àdduna bi baax kenn ku ne yaa ngi naan sa moroom maa ko gën a bon maa ko dana xam ne maa ko gën a soxor dana xam ne yàlla nee na buñ la tooñee sañ nga fayu waaye nga baale moo gën mhm. moo gën nga baale moo gën moo tax wa ma adrakum annabi sayidul xalqi habibul xaq sayid walad aadam almaasuum alladi yuuxa ilayhi qimmatul bashar sallallahu alayhi wa sallam soo ko defalee lu baax xidma defal ko xidma ndax daf koy gis ne farata la pourtant mooy sang bi de ndax dañ ko daf koy gisee ne impôt la ndax dañ ko daf koy gisee ne moom dafa kawe yow nga suufee déedéet day moom day ut occasion yu mu lay defalee lu gën li li nga ko defal mhm. laahi ndeysaan moo tax alal mumini allah yansa maarufal axirina lahu nit lu baax yi la nit ñi defal fexeel ba bu ko fàtte dee ko study di ko nafar di ko bind fune di ko waxtaanee fu yu bon li def yi ñu lay def na nga di ko fàtte fàttelu di ko jëllalee waaw mhm. wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan yi lay defal ci teranga bu ko mos a fàtte gor du fàtte teranga gor du du suul teranga gor du uññ sutura gor du soxor te su ma waxee gor maa ngi ci miin jullit jullit du fàtte teranga ji la ji la ñeneen ji la defaloon jullit du fàtte teranga ji ko ñeneen defaloon jullit du xam fakk jullit du uññi sutura jullit du soxor jullit du fayante lu bon jullit piir day baale ndax amul xolu xolu soxor mhm, jullit du ko am laahi ndeysaan moo tax boo defalaan yonent bi lu baax moom daf koy gisee comme bor du ko mos a fàtte day fexe rek du mu la mën a fayee lu gën te bu lay fay da lay wisaale ndax yàlla ko yónni moom laa la waxoon ne daf doon wooteel yàlla directement wootewutoon wutoon ngir boppam mhm. te yàlla boo ko defalee benn bu baax du day fay lu bare bëree bëri mhm. dem leen seeti histoire xool leen histoire Seydina Moussa Ba mhm. ak ba mu nàmb nàndalee euh, euh, ñaari gone yu jigéen ya bañ dem ba wax ko seen baay gis ngeen nit ku baax noonu lay def bu ñu la defalee teranga santal borom te bu ko fatte di ñaanal yalla te fo tollu te nga war fu mën waxtane teranga teraanga ju de ko wax amna nak barab yo xane bo fa waxtaanee ju la ma samba defal kerek da nga créer sa bopp junnee non te moy tool dana am ño xamne ne daa ñu jóg pour yàq sa diggante ak Masamba lu tax Masamba di la defal teranga mhm. lu tax Masamba di wara wara defal teranga ak ku mën a doon yaay nga woo bàyyi nga woo jabar nga woo warloo tere Masamba pour muy defal nit teraanga parce que Masamba te defal gi muy defal nit teraanga jaamu yàlla la te moom bi nga ko juree ba maco keroog la doonu jullit nag continuer ñu koy bindal tiyaabu di ko bindal bàkkaar bàyyi ko mu yokk tiyaaboom waaye jabar juy aaye jëkkëram def lu baax ci nit ñi yaay juy aaye doomam def lu baax ci nit ñi bay juy aaye domam def lu bax ci nit ñi ba mu leen di jéral sax nak nu tabaarakallaahu gasaka suul lay ndeysaan lay ndeysaan lay ndeysaan léegi yonentu yàlla Muhammad bëgg ko fay lim ko daan defal ci lu bax ben bés nena fa aqbal alayya dhat yawmin ben bés sayyidina Muhammad jakkalok mom ne ma rabiatu bnu kaabin ya rabiatu bnu kaabin ya rabiatu bnu kaabin qultu labayka ya rasulallah wa saadayka rabia ba ja turu baay ja mu ne ko wuy naa la yow mi yàlla yónni ndeysaan seet te te te te tabaarakallahu tabaarakallahu seydina muhammad a ngoog mbokk yi koo ko defal teraanga dana la ko jéem a fay mu daldi ne ko salni shay'an a'tilak dama bëggoon nga nga laaj ma dara ma jox la ko bëgg ah dëgg-dëgg suma talib bi manam dama jël misal talib ak sëriñ liggéeyal nga ma tarbiyu nga ma tay nak dama lay gërëm lo bëgg ah amna ño xamne ko bi ah sa kër gi barab sangam de am ño xamne ah sëñ bi sa doom ji de am ñoo xam bi ah sa auto bi de Sen bi sa nangam sëñ bi sa nangam mbiru àdduna am na dañ naan sëñ bi ñaanal ma ñaanal ma yàlla léegi mu Muhammad nag ki wax sal ni an laaj ma dara bëggal dara rek ma jox la ko ndax liggéeyal nga ñu oh nee Rabia dal di nekk ku wul hmm profité wul ndax yàkkamtiwul moo tax mu teey ndànk xam nga fii tey ñu xam ne yonentu yàlla Muhammad mooy buntu bi yàlla lum ne yàlla def ko yàlla def ko yonentu bi ne la loo bëgg man xam naa ne xel ne bu doon Gambie moom bu doon Gambie ninety ninety five percent bi yëpp dañ ko nekk ne ko yaa Rasulullah dañ bëgg a dem out out rek la am na ñu naan out buy malé sax baana na mhm. buy malé sax baana so ne leen ah gaa nga fa dé ñu né da baax na dañuy dem buy fi Nigeria so ñu ne ah gaa nga fa dé baax na out rek da léegoo léegi nga nga nga nims out ba mu tëralaat nawet nelaw nelaw nelaw waaw te out gënut ci yow waaw Lai aawut gënul ci yow mais daf ne ko am xil nii yaa rasulallahi ma ne ko may ma tuuti dama bëgg a xool lan lan ban affaire bu ngand laa lay laaj danaa la wax kanas dakiyan jiddan jiddan ki muus na de Seydina Muhammad ne la loo bëgg ma defal la ko loo bëgg yàlla defal la ko wax ma cuusal rek ay ko mu doonoon boo toppoon gone yi ci mbedd mi di leen ko laaj ñu bari seen àdduna lañ ko yemale rek bari ci seen àdduna lañ koy yemale waaw sama tabax ba sama kër ga sama laan ba sama château ba sama hôtel sama nangam sama school sama daara sama jumaa ja ci bari sax xaj na mën naa doon àdduna ju jur àlaaxira waaye dañ koy yemale ci àdduna rek man nag kii jaaxal na ma lu mu war a wax mhm. laahi ndeysaan moo tax mu bëgg a profitoo gis nga dafa am loo xam ne léegoo léeg lim lay dikkal ci sa dund duy bari bu ñëwee rek góorgóorlul ba bum la raw mhm. moo tax boo seetee ñi soksit ci seen life du ñuy jël rek du ñuy tëb tëb rek jël seen décision rek dogu ci déedéet dañuy xelaat diisoog ñoo xam ne ñu jara diisoot lañ boo buggee soog si sa àdduna noonu nga waaye doo ne doo def lu tëll rek nga ne matt ga damm na mhm. ndax nangu nga ndaw li may seetaan mbaa nangu nga waaw waaw lii nasiha la waaw bu la bu la nit merloo bul tëb rek di saayet bu la sa jabar merloo bul tëb rek di saayet bu la sa jëkkër merloo bul tëb rek di saayet am na ci ñoo ci lañuy ñuy décider ñaan baat gu ñu réccu sëy ba tas ñi réccu ko am na ñoo xam ne suñ meree la ñuy décider dal di gër rek maye baat réccu ko fu nekk ñi fay ñaan lokk ak euh, kalangaatu mais am na ñoo xam ne itam ci mere guñ mere seen jëkkër ci lañuy ñuy utee benn taximan bu leen di toppal seen jëkkër après ci la ñuy gisee loo xam ne ci la seen àdduna di yàqu mhm. laay ndeysaan moo tax bul di mer rek la yonent yalla Muhammad waxon So, mere su la fekke nga tok taxawal su la fekke nga taxaw bu mune ne wéeru ma nga tedd waaw te gis nga japp ak nan ndox japp euh, julli ñaan rakke ndox mer ci sheytane la bayiko ko xam nga euh, mom wax waxon na wane won na kayitu juddum nee na moom euh, yàlla ko bindi khalaqtani min nar mom ci yalla ko bindi ci safara mom doomi safara la ak ginne Mun shaytané wala rais shayatin iblis té mer matière la bo xamné ferñenti shaytané la su ko fé so méré comme safara ndox daf koy fay jappal nga julli ñaari rakka waaye bul jël mu décision ci bi nga bul décider dara bi nga méré ndax bi nga da naka li nit ci yow muy xel da xala muru da xala motax ku mer rek waye merna dàq naa la mer naa fase naa la mer naa may ma baat mer naa génnal sama kër mer naa bàyyi naa la mer naa da ngay mujjaa rek réccu yàlla xam na ne ñaata nit ñoo ñoo ñoo ñoo dogal dara ci biñ meree ñaata nit ñoo dog ci dara def ko biñ meree bi seen mer jeexee dañ ko réccu ko réccu trop ñii daañ ko mën a wax ñii duñ ko mën a wax ñii daañ ko mën a wax ñii duñ ko mën a wax mhm. moo tax boo meree rek ndeysaan waaye gis nga azkiyaau yi al azkiyaau daiman wa naajixuuna fi xayaatihim laa yattaxiduuna xaraaran sarian duñ tëb rek ne tël rek ne lii lañuy def mhm, ñi soog si ñëpp foofu lañu jaar teg fii bu doxut nga teggi dellu gannaaw teg fii bu doxut nga déggi teg fii bu doxee nga tegaat beneen mhm. noonu la léegi nag wax na yonent bi sallallahu alayhi ne ko may ma ma xelaat ci yonent bi ne ko laa baasa aleyk man nga xelaat nee na boobu xale laa kuntu shaban yawma idin faxiran laa ahla lii wala maal wala sakkan nee na sax man du caageen nii de mais ci perron jàkk ji laa daan fanaan daanaka amoon kër amoon famille amoon nangam waaw léegi gis nga ku demati màkka rek boo xoolee ci gannaaw rawdu bi da gis moom fa daan tëdd mhm. wallaahi ndeysaan bala moo ñëw di liggéeyal sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ nga daf ko am na famille am na ñàkkoon na dëkkuwaay ba euh, tey fi mu nekk nii bu ne woon yonent bi alal laa bëgg waaye xam ngeen saalabatu li ko daloon mbokk yi saalabatu saalabatu ku fonkoon julli ci gannaaw yonentu bi la mais benn bés tam na ko yonentu bi man daal dëgg-dëgg dama bëggul nga ñaanal ma alal yonentu bi ne ko waaw foo ko lu lu ndaw lu la doy lu la dul beewloo moo gën lu bari lu lay beewloo mu ne ko duma bew ñaanal ma rek mais am na ñoo xam ne ñi ngi ne ngéej dañu ngër ngëri bay bëgg a dee yàlla nangu leen a may alal daf leen bëgg parce que xam na ne bu ñu amee alal dañu beew danañ fuuy am na ñoo xam ne dañoo bëgg siiw ñu ngay sangoo saafara ñu ngay sangoo xamb ñu ngay sangoo nangam yàlla ne duñ fi siiwee buñ fi siiw di murtat di génn yàlla di weddi yàlla waaw ñaata nit la siiw sànq siiw moo yi dax ne siiw du jàmme borom ñaata nit la siiw sànq ñaata nit la siiw yàq seen àdduna parce que boo siiwee jamono ci jamono boo xam ne ñi ragal yàlla bariwuñ waxuma lañ lay fexeel ak lañ lay waaye lañuy wax ci yow parce que ñi ragal yàlla léegi da leen di compte léegi ñi ragalut yàlla ñépp kenn ku nekk li muy wax ci yow lu ci bàyyi xelam sax lu ko neex lay wax mhm. lu ko neex lay wax ndeysaan waaye ñu delluwaat ci Seydina Rabia ñu delluwaat ci Seydina Rabia hmm? allahu akbar yonent yàlla muhammad saai sallam nangul na ko ko gis nga ba mu ko moyee mu mu settantal ba ci kanam nee na te gis ngeen li ma doon liggéey mooy abitu maa rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa ataytuhu bi wuduihi wa xaajatihi fa xaala li sal Fakultu asaluka murafata murafaqataka fil janna bam ñewate diko di defal ndox yonentu bi ne ko sal lajal lo bëgg mu ne ko ànd ak yow aljanna ah waaw dëkkaale yow ci aljanna murafaqataka fil janna liggéeykatu yonentu la won man nga ko tuddee surga wala mais surga da ngay am tol, mbindan da ngay am salary. Mom uduton yoy yep yalla la doon ut ak tubi bi mandel yalla daan sottil yonent bi ndoxum njàpp lépp lu yonent bi bëgg yonent bi nag lu baax li mu ko doon defal mu fayee ko ne ko loo bëgg laajal mu ne ko ànd ak yow aljanna laa bëgg ànd ak yow aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko aw gayra dalika qultu huwa daaka ya rasulallah loolu rek laa bëgg ànd ak yow aljanna te gis ngeen ko mu ngi nii ñàkk ñàkk kër ñàkk yére ñàkk alal ñàkk soxna ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk laaju dara ci àdduna dara parce que al muminu yaamal li axirati yi fa dunia daaru fanaa def ak moom ah, ah fa dunia fa moo tax al muminu al kayisu te al kayisu yaamalu li axirati yi ki muus mooy jullit jullit piir mooy ki liggéey ngir àlaxira parce que da fay jeex hmm? léegi nak liggéeyal yonentou bi xidma yonentou bi bëgg ko fay fay teranga ji mi def ni ne ko laaj ma lula neex mu ne ko and ak yow aljanna dekk ak yow aljanna mu ne ko leneen am benen soxla mu ne ko lo rek la soxla mu ne ko fa inni ala nafsika bi kathratis sujudi nang ma ci dimbalé yow ak sa bop ci bari sujud bëri sujjóot waaw waaw looy jaamu yàlla rek mhm. ne nag ndeysaan talabtu shay'an adiman wallahi talabta shay'an adiman ne na talabtu shay'an adiman ma ne ko talabta shay'an adiman mhm. wallahi ndeysaan mënoon naa wax ne dama bëgg taax dama bëgg kër damaa bëgg ñii damaa bëgg mbiri àdduna yi waxu dara ci mbiru àdduna dëkk ak yonentu yàlla Muhammad aljanna te gis nga nag mbokk yi yonentu yàlla Muhammad ku mos dëkk ak moom ci àdduna dootoo ñaan yàlla teqaliko ak moom bu man da ñàkk ba mënta ñàkk da bëgg a dajewaat ak moom ci aljanna mm-hmm. wallaahi ndeysaan moo tax nag kon mu ne may taxoo jaamu yàlla nag lu bari ndax dama bëgg and ak yoonentou bi aljanna mhm. dama bëgg dëkkaale ak yoonentou yalla muhammad aljanna wallahi ndaysan <laughs> ben bes après loolu yàggu dara waxtu bu man nga wax waxtu bu New, wala waxtu bu Yag. وقت قصير أو وقت طويل هنا يعني بين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما بوكو كو ديفال لي ني المكافاه مقابل خدمه ماديه اها يونت بوكو بوكو كو ديفال بنين بنين سوربرايز كو بنين ترانغا هم يونت بي كين دو مو اها بي مو واخ waaye ci condition bii am na lu mu sàkku ci moom léegi nag beneen beneen après loolu waxtu ab diir xam nga tànn na àllaaxira hmm. yonte yàlla Muhammad benn bés mu ne ko rabia allah tatazawaj ndax doo ut soxna moo tax mbokk yi dañuy dañuy jàll du yàgg ci li xale yi moom li li nga xam ne waajur yi ñoo ko war a defal njaboot gi ndax foofu lañ teg seen tànk walla déet mu ne ko rabi a ah, ndax duwut soxna mu ne ko yaa rasulallahi man de bañu ut soxna waaye damaa bañ takk soxna mu dox sama diggante ak xidma bi ma lay xidmaal liggéey bi ma lay liggéeyal mhm. wallaahi ndeysaan tabaarakallahu tabaaraka mu ne ko dama bañ Euh, am soxna mu dox sama diggante ak xidma bi xam nga am na ci xadis Yaala al Amiri yi nee na benn bés Seydina Xasan ak Seydina al Xuseyn alayhim assalaam dañu ñëw ci yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne san, mu jël ñaari dom yi dom lañ ci mom seut lañ ci mom ndax mo jur seen yaay moy magi seen mu taf ko ci bi fa dammahuma ilayhi wa khala innal walada mahbalatun majbanatun ah wa nee innal walada maxbalatun majbalat majbanatun waaye gis nga Seydina Rabia ne ko amalu ma ca mhm. benn bés mu ne ko man de ba ñu ma de waaye amalu ma ca kon tontu bi Euh, euh, càkkute fii nekk na wala ndigal li nekk na ay ay ay yoon Seydina Muhammad dal di noppi nee na beneen yoon bon boobu mooy ñaareel yoon bi bële ne na ko ba ma takk soxna waaye mu dox sama liggante liggéey bi waaye man sax amuluma cene beneen yoon ab diir bu xaw a yàgg Seydina Muhammad dal ne ko yaa Rabia ala tatazawaj doo denc soxna nee mu tontu ko xam na mu ko tontu woon rek ci yoon bu njëkk ba mhm. nee na waaye nag bi mu wéetee waxtaan ak boppam dañuy wax waxtaan ak ngegenaayam nee mu réccu maakaana min nii nee na mu dal di réccu wa qultu way xakka ya rabia daal ne xee man de perte naa de toskare naa de wallahi wallahi ndeysaan نمونكو ربيعه موموي واخ اك بوبام ربيعه النبي اعلم لا اعلم منك يا ربيعه بما هو اصلح لك في دينك ودنياك تا باخ مونيكو يونت يالله محمد موي كليفاي كليفاي مولا غنا خم موموي واخ اك دي ربيعه فيغا دغ سا تانك باخو فيغا تاخو كي موي كليفا كليفاي مولا غنا خم لي باخ سي يو سي سا ادنا سي moom moo gën a xam wa huwa araf minka bi ma indaka ah waaw araf minka bi ma indaka mu dal waat nag ne yonent bi bu ma woowaatee gannaaw yoon wii ne mu utal soxna danaa ko nangul dana ko nangul de ñeneen ndeysaan ab diiraat rek yonent yàlla muhammad woowati ko ne ko rabia waaw ak xanaa doo wut soxna nag ñetteelu yoon xoolal yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ni mu xëree woon ni mu yittewoo woon ni mu sonnee woon ci lu baax ci saxaabaam yi lu leen di jëriñ àdduna ak àllaaxira waaw waaw xataa li nga xam ne dafa baax ci seen bakkan te leen di jox tiyaaba sax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ci doon sonn xam nga mënoon naa toog rek ne pat mais kilifa soo kili ak njaboot yonent yàlla Muhammad a lay jàngal ne lu war ci ñoom lu jot ci ñoom def ko bu dee denc soxna la buñ gisee kuñ bëgg utal leen ko boo gisee sax yow te ñoom gisuñ jéemal ndeysaan boo gisee ne jot na ci ñoom te ñoom gisuñu parce que léegoo léeg li ma la wax rek xale yi léegoo léeg fi ñuy gisee duy baax yow mag mii seen kilifa yaay mën a defar seen gis-gis waaye bu ñu demee ba jamono ñu naan jamono ji njabootu njabootu kata njaboot gi njabootu kanaara lañ njabootu kanaara kanaara kanaara mooy mooy rab boobu mel ni ganaar noonu te te gàtt di di rëy kanaara ute na ak naat waye lama la tax may misal kanara namu mel bu ngeen xamu kanara moy rab bi nga xamne ne fu salté rek fa lay sembu mok doom fu salté fu tilim fu toy fu rappajoo mom kanara fa lay rëm fa lay fa lay fa lay sëmb moog njabootam waaw te ñine njabot gi njabotu kanara lañ lool lañu wax lool lañu wax nga gis kanara yi dañ auto yi trafic bi xat way kanara gi njaboot gi dañuy force ne dañuy jéggi tali bi léegi seen yaay da ciy topp bu fekkoon nag ne dañ nekk njaboot gi njabootu muus lañ sax mu tane hmm. waaye njaboot gi njabootu kanaara waxuñ njaboot gi njabootu nit lañ léegi njaboot gi njabootu kanaara lañ dañuy jiitu nga topp ci njaboot gi ala kullu mawludin ci ñoom la woon yuladu njaboot gi mooy ki nga ñooy wayjur yi ñooy ñi nga xam ne ñoom lañu la ñu waxoon ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an yi ci njaboot gi léegi nag kilifa gi nga ne amatoo kàddu njaboot gi ñooy ñooy dogal da gis sax la yonent bi doon jàngale njaboot goo xam ne wayjur yoo xam ne dañu ragal seen njaboot xam nga lu tax du dóor de waaye lañ leen di jox weer wu ne lañ ragal njaboot gi mere leen dog ko te jabot gi buñ ko dogé yalla dog len waaw waaw sa li nga man di ko ko defal war ko ko defal nga ne dang ko mere ndax nangam nga dog ko bokoy dog yalla di la dog li nga nan defal sa wayjur na ko waxat mu leer dom ju man di defal sa wayjur nga ne da nga mere sa wayjur ngir nangam wala ngir nangam lang ko don defal nga man ko nga dog ko boko yalla dog la te bi yalla nak man na nek dogu naga ak alakhir yalla ñu ci yalla musul motax lu ngeen man di defal wayjur yi yok leen ko ah waaw wayjur yi na ngeen am seen fulla na bu kenn nangoo doon wayjuru kanara nekkal sa place sa dom nek place su dom bu doom yek nga wan ko nak fi moy sama place su ko géddee nga tok japp ci yalla maa gis de doom yoo xam ne mën nañoo xëy ba jant bi so duñ lijjan nekk ak seen baay ci kër duñ ko lijjanti duñ ko nuyu ci aaxiru zaman bii laa ko gis soo dajeeg moom ci ëtt bi nuyu ko soo dajewut ak moom sa yoon nekku ci soo waajur su génnee kër gi lijjanti woo ko xanaa nga am soxla ci moom kaas ba jeex na nangam ba jeex na dépasse bi ñëwagul nangam nangam nangam nangam wala dama bëgg a am nangam maanaam njaboot gi ci seen bopp suñ moytuwul njabot ku bare bare bare man nañu sëxër way duñ tak te li len fay du kenn ku nyom liggéey way ñom ñoko ko liggéey ci sen ron way jur yi ñoo liggéey ci sen ron way jur de ju bëgg barké bo xeyé da ngay dem sa buntu neek bay nga nuyu ko mu ñaanal la yalla sa bés bobu nekk bes bu am barké bo fi amé benn bes barké ñaari bés ñetti bés yow semaine bu barké. raw nga say say waaye semaine lëmm nga dëkk ak sa waajur ci kaw suuf même fu mën a ne ci àdduna bi semaine lëmm amuloo sa ñaanu waajur semaine lëmm full wik amulo sa ñaanu waajur benn yoon demuloo nuyu ko mu ñaanal la woowuloo ko téléphone mu ñaanal la ah mbokk yi façon doom yooyu ma ne buñ soppiwul mën nañuy sëxër waaye duñ tàkk su ko defee ñu naan diwaleen liggéey ak diwaleen nangam diwaleen nangam fekk li leen ko xañ ñoom ci seen bopp la mhm. mais wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan du xadis di alquran la la mhm. laay alquran la moo tax gis nga tabaarakallah yonent bi ko waaw rabia doo denc soxna ñetteelu yoon yonantu bi wax na ko ko kenn du yonantu yàlla muhammad mhm. fi mu nekk nii dangay am sa doom teel ko wutal soxna ñu ne yàq nga laay fam yàq nga laay fam ñu ne la yàq nga àdduna yàq nga àdduna xale bi fekk yow yow yaa ko defaral àdduna waaw waaw yow yaa ko defaral àdduna nga am sa doom bu jigéen mu teel a sëy ne yàq nga àdduna ba gis nga mbootaay sàngam nangam nangam xale yi teel a sëy lañu ñu bañ nangam am nee naa leen gaa yi dañu juum féelati nañ dañu feel ni coronavirus feel nañ xam nga li tax ma fekkee ne da nga wax ne xale yi buñ teel a te teel a sëy gi yëpp buñ teel a sëy mooy buñ leen teel a takk ci jàkka ja mbaa ca cooj ba mbaa ca nangam yaa ngi ubbil buntu xale yi teel a am far ubbil nga leen moyen yoo xam ne xale yi mën nañoo teel a def lu leen neex da nga leen di jox ay matuwaay yoo xam ne dañ koy defee te dara du xew yaa leen ko yombalal ba pare àdduna bi àdduna bi taxaw àdduna bi lëndëm mbas bi wàcc ngay jàmbatu ratatati yow la yaa tilimal àdduna bi du kenn ñoom la am la de bu yàlla tegee ñi teggi bu yàlla waxee ñi weddi bu yàlla rëddee ñu ne dañ koy far am la tax loo gis loo gis politique bu ne dañ ko indi ci àdduna bi mais du dem jullit yitam tam ñu ngi nii rek di dox rek jiital seeni ndong rek li nu amoon ñun jullit yëpp daanaka ñàkk nañu ko lépp te ay kilifa yàgg nañ fi di wax de wallaahi ay kilifa yàgg nañ di wax waaye faale wuñ leen woon ñu bari ci ñun sax euh, xamuñ ndax ñooñu ay ay ay ñu ngi wax sax ñun daal waaw diw génne na album diw nangam na diw nàngam na diw nangam na Cheikh Imran Hussein Cheikh Imran Hussein boroom xam-xam la yéen ñi nga xam ne jàng ngeen nasaraan moom li muy wax ci anglais la koy wax dem nañ ci YouTube bi ngeen xool ay conférence waxoon na bu yàgg ne dinañ àdduna bi dina dem ba foo xam ne dinañ taxawal aj gi aj aj màkkatu te waxoon na ne buñ taxawalee aj gi la tax ak lay la la tax ñi taxawal ko ak la ñuy feeñal du benn moom dem na ba ne dañuy naxee nit ñi sax ne dafa am euh, maanaam dañuy layal nit ñi ne dafa am virus boo xam ne moom lañ ragal lii te ba mu koy def conférence bi 2004 la woon 2014 xam nga boobaak léegi daal 14 years la wala 15 years la wala 16 years dama leen seet ay conférence te li tax mooy nee na nee na ragal merum jullit yi maanaam ña jiite ci réew yooyu dañuy ragal meru jullit yi foofu lañ nekk fi mu nekk nii xalal rek léegi xam nga politique ci boppam rek dañ ne woon tappale la daanaka léegi politique gu tappale la ñuy dundee ci àdduna bi waaw tapp fii tapp fële tapp fii tapp fële dara doxul ndax àdduna bi yàlla ko mën a doxal te yàlla dafa indi woon ne jaar leen fii ma doxalal leen ko su ngeen jaar fii bu méttee du kenn yéen la bi ma kasabat ay naas mhm. te yàlla noonu na duma ko ceeñ dara du fi ceeñ feek ceeñu leen bi ko yonent bi saai sallam ne ko doo denc soxna ñetteel yoon ndeysaan xoolal yonent bi rek xoolal yonent yàlla muhammad nee na mu ne ko balaa yaa rasulallah bëgg naa denc soxna kañ maanaam xoolal ku foor mel ni yonent yàlla muhammad dëgg la Seydina Rabia foor na ci ñun suñu sang la ndax ku dendee woon ak ku tollook yonent bi jamono gëm ko bëgg ko wallaahi sang nga sunu sang nga àndoon ak moom ku toll ni yonent yàlla muhammad ne ko ñetti yoon mu ngi koy wax ne ko utal soxna ba mu ne ko xanaa doo wut soxna ñetti yoon mu ne ko ah kañ waaye kan laay denc xam nga loolu itam beneen affaire la bëgg naa jabar waaye kan laay takk danga gis ci soxna yi ñoo xam ne bëgg nañ sëy waaye gisuñ jëkkër gisuñ jëkkër góor ñaa ngi ci mbedd mi fees dell waaye du góor ñëpp jëkkër lañu mhm. jigéen ñaa ngi fees dell ci kër yi waaye du jigéen ñëpp soxna lañu te góor gi dañ naan ko utal soxna jigéen ji dañ naan ko utal jëkkër borom kër hmm? waaye bu dee góor rek nga bëgg am sa góor rek yomb na comme ni muy xewee rek am sa benn jigéen rek yomb na hmm? kenn ku nekk maa la takkal sagar maa la tiig xam nga maa tiig nangam ja ñuy xale euh, soo njëkkalantee ba féel da nga naan maa ko tiig maa tiig bu weex bi maa yow yow njëkkuloo de ndaare nga jël léegi sa làmmañ wi ngay jëkkiñ maa ko tiig maa nangam loolu moo xew léegi hmm? loolu moo xew laahi ndeysaan mu ne ko ay rasulullaay kan lay denc mu ne ko demal kër diw sàngam soo demee ne leen yonent yàlla muhammad inna rasulallahi yamurukum an tuzawijooni fatatakum fulana cettt ne mu ne ko demal dëkk demal masalan demal mbayeen demal mbayeen wala demal ndaween nga ne leen sayduna muhammad non rasul inna rasulallahi yonentou bi yalla bi neena ya'murukum yaamurukum mu ngi di digal ngen ngen takal ma sen dom ji ngen may ma sen dom bu jigen bi diw sangam neena mu ñew ak kersa fal min al maqul an joni ndax xel nangu na ñi may ma jabar ak ni ma ñaké awma dara awma nangam neena ma ñew wa qultu lahum inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam sallam arsalani ilaykum yonentou be ma yoni ci yene nee ngeen may ma seen dom bu jigen bi fulana xalu fulana ah. Ah ah, ah ah ah yabdu annaha ala mustawa rafia jiddan wolé mo tooñee ko ndaysan gaay yi na ko yàlla yërëm anti jaari la ko dan gën di tooñee man ko yow anti jaari yow su ma won ci Allah man non ak sama chaaya ji non ma dan topé nak yi rek non ndax dag mo nok nangu seel su ko defé nak mu mer ndeysaan nah, yal eh, na ko yàlla yërëm suma soxna su baax soosule waaye Seydina Rabia nee na dafa jangat ne soxna si dafa nek ci famille bu eh, Manam famille bu for eh, moo tax bi mu ne yonentu yàlla Muhammad moomu yónni nee na ngeen may ma seen doom bu jigéen diw dañ ko ko ah xalu fulaana diw ah maanaam jàng na ba am ay diplôme comme ni koy waxee Har la mu ngay liggey ci ministère ba wala moy ministre sangam wala moy moy president président ba wala mu ngay liggey ak président wala moy nangam yow nga jógee ci daara ja suñ la joxee suñ la joxee bind la e ak B bokoy rit boo xoolee kayit bi sax da ngay juutal dang koy juutal hmm la moo sa motax gay neena len Afrique likoy defar gay dañ dañ genné ñi ko mëna defar seen loxo ci bir parce que Afrique laa wax de Afrique waxuma Maleek senegal ak Afrique tout Gambie ci biir gis nga loxo doomu daara yi ci biir ba ko jóoyee ci biir billahi léegi tey Afrique dem waaye su fekkee ne dañ naan ku jàngut ecole rek jànguloo da ngay gis suñu xale yi dañ koo gëm a gëm ba bu ñuy xasante sax ku def yëfi yëfi yëfi yëfi nasti wala ku koo xam ne dafa xaw a mel ni tubaarakallaahu ñu ne waaye yow yow daal danga nga suppé ah, yaa ngi mel ni jànguloo jànguloo school waaw te gis nga ki réer ki ki réer mooy ki xamut farataay njàpp xamut farataay julli xamut boroomam xamut yonentu yàlla muhammad xamut jibril xamut mikailu asrailu srafilu xamut barzak xamut siraat ñaata ñaata check point na ko fay xaar xamut bu bu bu duggee bàmmeel ñi koy laaj ñan lañ luñ koy làkk kooku moo xamul dara kooku xutumba la dañ ko war a woo ne ko kaay jàng du wees nga jàng jàngal ah parce que nag mbokk yi fii danaa fi wax ni ñun nu ngi jàngale ci online bi réew moo mën a nekk age boo mën a toll boo nu contacté ci jàng du wees daañu la jàngal incha allah registral rek waaw moom xam naa ñoom tubaarakallah sali danañ ma may ak ñoom Pa Ousmane advertisement bi duñ ko fay waaw ndax kuy xalam di ca jaay su ko defee loxo loxo doomu daara yi lañ waroon a dugal ci mbir yi waaye gis nga du fenn du fenn de fépp la fépp doomu daara yi dañ leen xeeb ci ni ñuy doxalee réew yi dañ leen xeeb ci wàllu média yi dañ leen xeeb ci dañ leen parce que ñoom itam dañoo ñëw ne nii man nag loolu laa gëmul dañuy bokk sali mii daa war a sonn ci caméra bi mu ñëw ne ko sali ma aw la waaw ma aw la parce que da defoon naa ko fi métier defoon naa ko fi métier ca jamono booba dara cee métti na laay ndeysaan sama xarit ba njaay jaata rek daan ko liggéey mu jigi mu utal ma benn caméra rek waaye tur ba mu bëggee yàq njàng ma laa ko teg xam nga boo tubaarakallaahu waaye nag ñun suñu yooyee ute woon nag yi ñoom sal yi di amee nii su ko defee ndeysaan euh, la ñuy doon rek mooy ñun dañuy jël rek ñu ne nañ nekk waarekat waarekat koy waar yow nit ñi dañu am jot déglu waare waaw koy waar di ñu am jot déglu dañ lay def waarekat wala ñu def la waañaankat man kataba haza nga bindal saafara kii diw wàcceel kii kaamil kii bu fekkee ne dongu daara yi loolu rek lañu leen di doyee Afrique moo tax Afrique di di dugg ci ci góota gi rek su ko defee ndeysaan ah am naa yaakaar ne gars yi dinañ ko may nag waaye waxtu bi salimatu nee na waxtu bi mu ngi jeex si mhm. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax su ñu ñëwaatee beneen programme dañu ñëw ci li gone yi moom ci seeni way jur maanaam xam nga ak ci jur la ñuy wax waaye àq njaboot gi àq njaboot gi bu baa nag danañ dugg ci biir njaboot gi ni war a xamee seen borom ak nag ni war a xamee yonent yàlla muhammad ni ñu war a jàngee alquranul karim ni ñu war a xamee seen diine mbokk yi foofu la leen di waxee ne incha allah képp koo xam ne képp koo xam ne bëgg nga sa doom jàng diineem jàng diine boo xam ne daf koy boole xam àdduna jokkool ak ñun ci jàng du wees daan ko jàngal ci online bi incha allah mu xam diineem xam ngoo xam ne parce que àdduna bii njàngam diine moo nga mën a xamee ni ñuy naxee ci àdduna bi képp koo xam ne rek kontaan nga ñu ci 7922021 incha allah wala 911234 wala 50024222 incha allah ci whatsapp bi euh, wala nga call direct moo xam foo mën a ne nag éej boo mën a toll boo jokkoog ñun registré ci sunu daar daara jooju daaru saabirina ci jàng du wees pàcc boobu incha allah nga xam ne ñoo yor online daara bi dañu la jàngal njàngal moo xam ne doo ci sonn te da nga xam sa diine da nga xam itam sa àdduna te itam ca ngay xamaale sa bopp gannaaw boo xamee sa borom xam sa sayyidina muhammadin fii la woon ci télévision bu mag bii nga xam ne moo di Gambian Talent TV nga xam ne ay borom talent rek a fi nekk yal na yàlla defal leen jàmm di di di bu baax ba Ousmane Diouf mi nga xam ne moo ko jiite di nuyu yaayam ak soxnaam di nuyu itam nijaayam Alaaji Baye Dam Diouf salimatu bangura mi nga xamne bangura de ah? bangura mi nga xamne ne nekkal ci caméra bi ñu koy sant bu baaxa baax di gëreum di gërëmaale ñom Moussa ak ñom Fat Samb ñom ñepp wax deug Yalla Mariama ñi nga xamne ñi ngi liggéey ci kër gi yépp ñu ngi leen di ñaanal na def leen mag ñu barke kenn ku nekk li nga dëgmal sa àdduna te nga mébét ko na ko jox te muy li gën ci yow ta nga bokk say mbokk sen mbokk la Amin kan Al Mansuri alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh